来啦！ malah

الكواكب اليفاس للمصطفى للمصطفى buñ ci ragal fenn suñu jotaay léegi bu neex la nga ne sëñ bi xajal mu sëriñ am ñu loru ci te nit ku baax bu loroo jëriñuwul waaye bu loroo itam jëriñuwul nee nañ tee wax ji rek nee yebbe ak teggi ni nee man Moustapha Sylla ñi xam ne ñoo ma mag ma ànd na ñoom ñuy samay kilifa sëñ Fallou man jëm dalaa def ngay jëw ci kër gi moo tax ñu jaar fi yow nee na bu neexee ci moom tam day diis kenn ci moom ñu jàll ba fa sëñ Fallilou teggin yëpp fa jëlee ak yar ban fa yóbbu ne lii rek lan fi mën a jëlee mu gis waajuram yii muy Serigne Seck Fall moom sëñ Mor Moussa Fall muy Serigne Cheikh Assou Ndiaye mu nan jug dem fa moom yi gën a àdduna nga xam ne lekk naa doon ci ñoom mën naa dem ci ñoom it loolu ab yar boo xam ni naa ki teggin bu ne Serigne si la Baye Fall bii bul nee que de Serigne si la Pikine waaye ci la moo sos yoon wi mën na la sos yoon wi mooy loola la sos l'islam ndax ka tax ñu bind lépp ay bokkam dañu woon daal daa moo tax mu woote lii mu nit du ko woote ci sa biir nee noonu nan ko a waxee ci nee na ko waral lii lépp muy Serigne Touba jiiñ ab dof ndax moo tax mu a wax li wax waaye gund wax loolu loolu de la bokk mi waxoon mais sun maam nag ñun nga xam ne lu am lu nekk mooma ab dof lañ ko jiiñoon ndax defi yoon yëpp daan def mujj nag balaa kenn def nit mel ni seen maam yéen kon nag bu ca wàcc la leen teg ab dof moo dof moom ndax yéen seen ndox du dara ñuul ci sëñ bi donc kenn mën na nangu seen alal mën leen a ndax ci dara bu ngeen ñëwee fi sëñ bi rek melokaanu ba ngeen di wane loolu melokaanu bëgg la rek ci woote yoon ci ak bëgg rek la woote su woote woon ak xam nga xamante ni man. sa bëgg lu waay am ci yoon wii sa bëgg ko may lu waay nekk ci yoon wi sa bëgg ko xañ kon yéen ñi sant si la nee bu fa bee kaddu moom Cheikh Moustapha mii du ko jëme ci ñun nee ñi nga ne moom ñoom ñoo bokk pas-pas ñëpp ñu baax ñëpp dina ko ko nangul de ndax bari na la sotti loo ni ci yoon wii ña tax sotti ci leen bokk ñun wàcc la leen koo xam ne dëgg rek nga wax rawatina nga xam ni yéen a waral bis bii seen waajur moom muy sëñ Abdoulaye Sylla ak sëñ Mawla Binta moom ñoom rek woon mais bi ngeen ñëwee yéen tam ngeen ñoo xoolee sëñ Mawla Aminta ngeen fab ko teg ko ca ku nekk sopp si fàll ma nga jël ci la xam ni. di defal nekk loolu nag jëf la joo xam ni yéen jëf ci kër gi askor nag la gën bu jëfee ba noppi na aw laama ñam ñu waxal ko moo tax mun leen bàyyi sëriñ noppi ma waxal leen man sëriñ Moussa nee na ñu wax bu demee fee lu ñu yaakaar ni xaraamu lu nekk ak yéen waa Mbàkke ngi fi mu soobe njenne njóobeen lépp ngi fi waaye yéen waa kër Cheikh Ibra Fall rek borom Touba doy loo teg leen ci doon war may kon lépp loo ni du war may Touba koy def nee na bu jaar fii da jaar fii rawatina ci wàcc nañu nee na nawu leen naw leen nee na moo tax ma wax kàddu yi muy wax moom mii di bàyyi sëriñ su waxee ba tudd aw turam su nee mbooloo bu dee téeméer juróom fukk yëpp dina loru ndax na ñuy waxee nay seet la cee dëkk mu wax ko yang yéen ñi doon jëf nag nañ ñëw sunu làmmañ nu waxal leen nag dee te lii may wax nag bu baax ku nekk rafetlu nag lii may wax mu jëm ci la ñu baax ñii rafetlu nañ ko bu leen dégg kàddu nag ñu yëkkati ko ci biir mbooloo yéen yaakaar ni ñëpp ko moom bu dee am ngàñña du ñëpp bu dee aw tagga du ñëpp lu ci nekk yaa ko def ak ña ko def ñoo ko moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi sëñ Lamin kàddu yaa waaye sëñ Moussa ci la boobu gépp ñi nga àndandoo di sant kër Cheikh Afal ci turu kilifa yi toog muy sëñ Assane Fall muy sëñ Moussa Fall bi fi teewal magam yëpp waaye ak sëñ Fadil Fall mi nga xam ne moo fi teewal ñëpp njabootu si Ablaye si léegi yëpp góor a jigéen mag ak ndaw ñi nga di sant la ko dalee ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Mor Fall benn ci kii gën a ñëw bàyyiwul kenn ndax man mii nga xam ne xew ci man la xewee ñëpp dañoo xam li ngeen ci taxaw ak li ci jàpp moo ñoom ñëpp ñu ma ñu nga xam sa ko ñu na indaale la war indi naa tudd sëñ ma seer mën naa tudd sëñ guudoo mën naa tudd waaye ndigal rek day daw si ginnaaw dañoo am ay kilifa nag bu ñëwee ba fii bu fi nañ fa xëy sewal jéem ak barki démb loolu lañ fi xëy seen tey ñu ngi sant waa Mali yëpp rek bu lim juum bàyyiwul kenn waaye yi sëñ sëñ ma leen di gën a seere leen sama diggante jëmm ji mooy sëñ Fallou sëñ Modou Binta Cheikh Moustapha maa ngi tuub de waxu ko wax lu mu ko waxoon naa la ko nga nangul ma ko lool Binta dafa gën a daa am ku ne ma dem Diop daal maam say ñuy bind ordonnance ñuy laaj borom këram maam say dafa mën ca àll ba day sàmm te maa ngi taxaw boobu amu ñaar téeméer 2007 la. moo ko ma tey nag sëñ Fallou bàyyiwul lam def ba ci tudd nii sëñ Lamine lim ci def sëñ Moura yi nii maa ngi ma ànd dégg nee na ku ñun ñëpp la koy defal dégg sëñ Fallou ñëpp nga bokk na sant di la ñaanal fa nu gudd bu ànd ko wér nga eggale ci ànd ko sa ak sa rakk yëpp di doole Cheikh Ibrahima Fall waaye gan ñi nag Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké laa ko tuddee doomi soxna maam say faat sëñ Mountakha mii fi nekk borom Tuubaa Xaadimu Rasuul moom laa ko tuddee mooy sama xarit soo doomi soxna Binta Gueye sama mag ju baax ji laa ko tuddee muy sëñ Moussa Fall Falil ñoo bokk waaye ndaw ci la gudd amu ああ。 borom affaire yàlla na dund ba yow ci liggéey bi. amiin amiin amiin amiin. doolay maam Sara amiin amiin amiin. amiin nga jàmm ba ñëw ci liggéey bi. amiin amiin amiin amiin. amiin amiin. amiin amiin.